xoolee département Bambey bi même suñ commune bi sax am na ñun fi leen toogal dem ñëwaat kon loolu moom yaakaar naa ne moom jëm sax ñuy sori am na fi kon daal ginnaaw bi nga xam ne suñu borom moo joxe ngóor monsieur le maire mu tegal ko fi mu liggéey fi juróom-ñaari at suñu borom nag nguur googu mu jëlati ko waaye du ma ne sax mu jël ko ndax wax ngeen ko seen bi waxee monsieur le maire bu génnoon fii dem ci beneen béréb ñu ne la kii nekkoon na maire Caxaar ba def fa juróom-ñaari at doo ko gëm ndax danga naan kii yorut at yu man lool yaakaar yaakaar naa bu génnoon fii nga gis ko muy dox nii rek ñu ne kii nekkoon na Caxaar ba liggéey fa liggéey bu rëy diiru juróom-ñaari taxawal fa taxawal fa nangam taxawal fa nangam taxawal fa nangam nga di ko lim boo ko xamul doo ko gëm da ngay jàpp ne rek benn sene la benn boy la boo xam daa génn nii rek di loo doo gëm ne kon moom jaar na Caxaar ba def fa loo jii. fii ba téeméeri at mu ngi taxaw jëmmal na ko teg dégguma kenn ku ne monsieur le maire def fi dara kàddu googu moom ku ko waxee danga ko wax nii rek ngir faat waaye xam nga ne moom waaye mu ñëwaat nag ne commune Caxaar daal laa ñëwaat ma bëgg fee liggéeyaat ngir gën koo yëkkati mu jëm ca kaw te amal na loolu tamit loo xam ne moo taxoon mu loolu nekk ci xelam ndax gis na fi lu ko naqari wala loo xamante ne na muy doxee. xëy na moom daal gënul ci moom mu tàkk ndigam pour jële fi loolu kon yéene jooju rek yéene jooju rek yéene ju rëy la pour yéene jël coono yëpp ak jafe-jafe yëpp toggoo ko ngir defar kon loolu ñun ñëpp war nañ ko jee sant war nañ ko ci gërëm waaye tam di sant tamit ñi nga xam ne ñoo ànd ak monsieur nga xam dañ ko gis xam ne kii dafa ñëw pour bëgg a ñoom tam ñoo am yaakaar ci moom ñoom tamit ñu takk seen digg pour topp ci ginnaawam ànd ak moom ñooñu tamit jaar nañoo sant ndax monsieur le maire kese moom kese mënut ci commune bi dara waaye dafa am équipe ay dëkk ak ay nit ñu mu àndaloon ci dëkk yëpp muy 62 villages yëpp dëkk boo dugg dafa ànd ak dafa ànd ak groupe boo xamante dañoo topp ci ginnaaw kon loolu tamit kàddu yi la yoo xam ne dañ koy jiital ñu di ci dolli nag ne ñun yàlla dogal na yaakaar naa ne saal bi ñun ay lépp la xaw rek julli moom la xew na dawlaat am xelam dellu ci alquran nga xam ne suñ borom moo naan qulillahuma malikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadirun nee na nguur ndomb ak tànk maa koy takkal maa koy takkal nit turu yi buñ ci demee dañ ciy fekk almaliku mooy buur waaye tam da ciy gis almulku mooy nguur almalik yàlla kese mooy buur almulku tamit mooy borom nguur gi mooy loolu mulku moom moom nguur waaye nag danañ sama cër bi dama ciy sédd sama jaam yi doomu aadama yi damay jël ci sama cër bi ma di leen di jox ñu xam ne ñun maire dañu booleen moom bu ñu alal alal donc duñu ànd ak maire parce que am ñu ñu woo proposé alal demul donc nañ sant yàlla bu baax man dama bëgg rek waxtaan bi ay affaire dañoo war a yooyu yëpp ñu bàyyi ko teg lii am am na ba pare mënatuñ ci dara tey ji nga xas nit ñi nga tagg nit ñi lépp ci yem mais mënatoo wax a wax bu am ndam li nañ fexee liggéey gis nga ni dina la war sax nga won ko ci ni ngay jëfandikoo moom mu gën laa bañ mais ni dina la war nga am na mu xam ne dafa juum ñëwaat mais nit ñi ñoo leen soxla te am na aussi comme li maire wax la dama loo xam ne dama koy wax gis nga responsable bu ñu jógee ci lii ñu bëri si ñun gis nga ab dëkk mënoo faa nekk moom 5 amul wala 6 nga bëgg faa nekk yow kese élection li ma yaakaar daal nañu bokk na ci moo dañuy dem ci ab dëkk boo xam ne kenn nit doo nga fay nekk di xeexal meer te bu fekkee ne yow kër gi nga yendu fi ngay nga xeexal meer mais genn kër fa lu mu nekk kon affaire yi bu beneen yoonee nañ fexe ba man yaakaar naa ne tey ku duggoon pël jël fa saison war nga mën a dem ci leen jël fa kenn koo xam ne fu seen bokk bokk fa lañ bokk te loolu man yaakaar naa ne bokk na ci ñoo xam mooy tey côté dëkk village yi am ay amoo dañ faa tuuti woon ay représentant te nag lii nii am jàngal la si ñoom te man gëm naa de tey jii nii nii nii nii nii suba bu ñu demaatoon élection gars yi nag ñi la daan bu ñu demaatoon élection bu ñu jéem a mënuñu laa daan mais dafa am lu bëri loo xam day xew ci élection ñiy def politique dinañ ko xam ñi def politique mën nañ ko bañ a xam mais yàlla xam na ne tey ñi la daan tey suba boo leen waxoon kaa ñu bëri duñ bëri ndax leer xam nañ ne ëpp ñu la doole dafa dañ ñoo xam ne na naan dañu dañ la naa woon parce que xam nañ ne tey jii nii la tax ñu daan la xam nañ ne xam nañ ñu bëri si ñun xam nañ lu ko waral dañoo yor ay nit monté leen ba yow egg du man eggu fa te comme mooy li kii wax sànq boo amee mbubb moo xam da nga koo sol am na loo xam ne mënatoo ko mooy li àlli wax sànq amatoo jot gi pour fu ne nga dem fa di wedd mais nañ dem ba ci kanam man de wallaahi billaahi wallaahi taala fii laa koy waxee mu leer naañ boo coupé ma baat boo naan fii la ma naan fii la te yaakaar naa ñu léegi fi ñëpp noonu la parce que nit ki bu ngeen àndee buru la lu tax nga koy baat am defet wërta mën a tax nga koy baat daanu rek daanu naa rek li war ko ba kon ça bu ngeen àndee lan may bay dala koy won mais bu la que kon ça boo ko bayee ci lii ça veut yi man dama toog nit koo xam ne xamula sax mu dëkk Bambey mu ne ma ñaari meer yi day ñaari maire yi day commune Bambey yaakaar naa mu wàcc woon am duñ muy maire Caxar ak maire euh, mu ne bu doon bilan bilan rek yaakaar naa ñaari maire duñ wàcc yàlla xam ne de kooko xamul wala bu la xamee dem jëflewu leen dara jëf jëf jëflantewu leen te kon loolu ak sant la kon affaire yi nañ ci sant yàlla bu baax man ne dama doon wax naan maire ministre billaahi wallaahi taala tey laa gën a gëm tey laa gën a gëm man su ma namee na man su ma faru man su ma farutoo yow da ngay xam ne farumaa ak yow man aw ma faral nit di laaxatu ci man su ma faree yow damay woon ñëpp ne kii laa faral te yàlla xam na ne li ma leer leer na te ku dee yàgg sa bàmmeel leer na ma bu woon waa Mbaare lay fal billaahi wallaahi 97 pour cent di ko gañ élection leen suñu ñaan waxu leen suñu ñaan ànd ak seen ngor ànd ak seen diine ànd ak seen lislaam am yéen yéenay kat bokk lay bokk baay bokk lépp man de kitaabu naa ko ci yàlla bu fekkoon ne ay naa fekk ngeen ne pare bàyyi naa ba ngeen ma fekkee sama kër ñu ne ko dëgg la dëgg ci dëgg ànd ngor ànd ci Euh, moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yenn bi woyof mu amee résultat euh, lépp rek ngir askanu département bu département bu Bambey kon ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp di leen wax ne nañu takkuwaat bu baax jigéen ñi nañ leen gën a sudewaat góor gi également la même chose dynamique bi ñu amoon nañu maintenir dynamique boobu parce nag leneen ak leneen ak leneen ak ñoom te combat bi dafay continuer li nga xamante ne yéene boobu la ñu am ci caxar yéene boobu dafay continuer am nañu yaakaar bu baax a baax a baax a baax ne wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ ci suñu kemte lay kattan yàlla nag mooy jël jox ab jaamam ci coobareem waaye yàlla moom it mooy xoolaat ci coobareem la mu joxoon ab jaam mu jël ko dénkaat ko beneen jaam kon ñooñu ñu ko dénk itam yàlla na yàlla def ñu am na réussite pour intérêt wu beneen bi ci des suñu collaborateurs yépp dama leen di sant d'abord je commence par le comité ak ñi nga xamante ne mobilisé wu na ñoom ñépp ngir jàpp ci liggéey wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na seen pas-pas ak seen yéene lépp rafet na ñoom dama leen di santaat bu baax a baax a baax di beral cant ak ngërëm équipe municipale bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoom ñoo ma encadré woon mu nekk une équipe dynamique compétente et une équipe engagée une équipe boo xamante ne wax dëgg yàlla ah dootul yomb nag équipe bu mel noonu parce que bu fekkente ne ci nangu bu fekkente ne ci muñ bu fekkente ne ci dëggu bu fekkente ne ci liggéey. yooyu yëpp day wax dëgg yàlla ay qualité la yoo xamante ne kenn ku ci nekk rek lii may wax avant ma koy seere sax ñeneen seere nañ ko kon ñu xam ne ñoom amal naa leen cant goo xamante ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem euh, ngeen ma may xam naa Moussa dina ma may loolu ma simpi kenn rek ci ànd boobu mu di Baye Ousmane nga cee ngalaam la ñu doon doyee mag wax dëgg yàlla sa taxawaay mat na ko sëkk sëkk sëkk sëkk mat na ko te loolu la doon soxla ndaw loolu lay soxla ndaw dafay soxla mu ànd ak mag moo xamante ne mag mu am diine la waaye mag moo xamante ni ku mag mu bëgg a defar muy mag mu dëggu itam kon yàlla na yàlla guddal saw fan wéral say cër ba projet bii nga xamante ne ni moom lañ am muy projet wu jëmale ci xar kanam lépp rek nga fekke ko te lépp rek nekk ci njariñ ginnaaw cant ak ngërëm yooyu mën nañ koo jooyal ci maire Moussa mention spéciale parce que nag euh, li may wax rek mbir mi bu yegsee fii c'est grâce à ci wax dëgg yàlla ci léppam moom dafa am qualité yoo xamante ne nii qualité yu am solo la maire Moussa kenn ma sa fekk mu mer lu ambulance teg fii recruter chauffeur boole kook ambulance bi corbillard nga xamante ne tey dafa nekk benn jafe-jafe boo xamante ne dafa am ci commune yi nga xam ne tey suñu oto yi moo nekkoon corbillard bi ñu defee situation boobu ak coopération décentralisée ñu wëlbatiku jël ci oto yi nga xamante ne jële woon nañ ko France indi ko defar ko corbillard kon am naa yaakaar bu baax a baax a baax ne ne serait-ce bu ñu yemoon rek tey ci wàllu wér-gu-yaram googu rek damay jàpp ne changé nañ commune xar kanamu commune ci xam waaye yemuñu foofu soo jëlee wàllu éducation nga xam ne jàng dafa bokk ci nekkinu doomu aadama pour mu mucc ay njàng mooma ñu jëkke ci école yi nga xamante ne ni xaj na amoon nañu ay jafe-jafe ndox ak jafe-jafe xale yi suturloo ñu wutal leen loolu nga jël lu mel ni école sànjara école Njaakaan ñaar yooyu yëpp nekkoon ay jafe-jafe ñu saafara ñu wëlbateku ñaari école école caxar bi bi ñu ko muré lañu ñu wëlbateku am deuxième centre d'examen benn centre rek lañu amoon mu nekk Mboyeen wëlbateku wax dëgg yàlla jafe-jafe bi nga xamante ne nii tam moom la. xale yi amoon ngir dem fi nga xamante ne mooy Bambey di jàngi jafe-jafe boobu itam yàlla dogal ak suñu partenaire ñu dem France avec le Grand Avignon mu jàppale ñu ñaari bus ba bus yooyu tey ñooy def transport élèves yi nga xamante ne nii ñoo doon am jafe-jafe pour loger Caxar nga xamante ne ni am na ñoo xamante ne bàyyi nañu jàng ngir loolu wëlbateku loola mu nekkoon suñu priorité ah ñu def loolu ci wàllu jàng ba léegi parce que jàng moom jàng yépp la wax ñu am benn programme spécial boo xamante ne nii dañ koo jagleel daara yi daara yooyu parce que nag ñun ni ñu composé woon suñu conseil municipal mooy tey li may faral di wax rek boo indee kaamil suñ conseil municipal bi nga xamante ne moom la mandaam jeex boo ko tegee ñu wàccee la kaamil keneen du ko rax loolu moo tax ñu am benn programme spécial boo xamante ne dañ ko jogleel daara nga xam ne daara yooyu def nañu ko ay mbaar ci daara yi ñu tolloog ñetti wala ñetti mbaar nga xam ne ci sax defar nañ fa ah li nga xamante ne nii itam moo di foo xamante ne xale yi fa la ñuy sukkandiku nga xam ne loolu programme spécial jàppale leen ci ay basan ak ay sijaada ak yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla daara yi aussi bàyyi nañ leen bàyyi nañ leen bu baax a baax a baax beneen bi ci des ci wàllu jàng muy wàllu alphabétisation ci jigéen ñi ñu gis ak programme PENEDJA bi ñu def ci lu am solo loo xamante ne nii tey wax dëgg yàlla jigéen ñi mën nañoo defar eau de javel jigéen yàlla euh, tey wax dëgg yàlla ubbeekoom la woyofam la yaatuwaayam la mais également bu ma ko sante damay sant équipe bi nekk ci ginnaawam yépp nag yépp sans sans sans sans sans sans sans exception dale ca ñoom Ibra ñoom Yigo ñoom Daawda ñoom Cheikh ba ñépp rek ñooñu dañ leen di sant bu baax a baax a baax sant suñu doom bàyyi di Mbay Fall bi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy chauffeur oto yi moom itam wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na euh, véritablement aussi ñu ngi koy ñaanal suñu borom ndax moom duma mën a sore ci moom euh, sant également secteur municipal bi nga xamante ne ni itam moom la ñu yàlla boole ñuy liggéey ñu doon liggéey euh, moom itam ñu ngi koy sant di ko joxaat wàccuwaayam bu baax a baax baax baax li nga xamante ne ni itam moo di président commission yëpp itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di terminer di wax na ñu ngi renouveler waat suñu engagement ci président de la république Macky Sall di xam ne du tey la ñuy yox yoxe ci politique di leen wax ne tey la ñu gën a engagé wu ci jàppale son excellence le président de la république ci bépp programme ak projet de société boo xamante ne am na ko ci Sénégal particulièrement ci commune Diakhar ak département Bambey d'une manière générale ci Sénégal yépp di wax samay militant ne leen ne leen dalal leen seeni xel engagement ba ñu amoon ci jëmale Caxar kanam engagement boobu tey lañ koy gën a féddali nañ leen takk bu soobee yàlla gën a góor góorgóorluwaat tiire ay leçon ak ay enseignement ci lii nga xamante ne jaar na fi ça nous permettra de mieux kon loolu itam na nekk li nga xamante ne nii moom la ñëpp di yóbbaale tey lañu gën a engagé waat ngir jàpp ak accompagner li nga xamante ne mooy politiku président de la république son excellence Macky Sall kon ñu xam ne lii nañu jàpp ne dafa gën tey dinañ ci sant yàlla bu baax te nag adduna noonu la nag wax dëgg yàlla dafa am ci ñu ko jële woon wane nañu am na ñeneen ñu ñëw ñu leen bàyyi ñoom itam ñu marqué seen tool ça nous permettra ñun itam local jigéen ñi mën nañoo ak saabu ñu wëlbateku ci loolu ñu accompagner leen gunge leen ci ay financement yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla dafay gën a yombal seen liggéey kon ci wàllu formation def nañu ci def nañu ci loolu nga xam ne tey jigéen ñi boo leen jëlee dajale nañ leen dëkk yi amutoon ay récépissé defal nañ leen ay récépissé wëlbateku boole leen defal leen fédération ba fédération boobu tey mu ngi fonctionnel composé wu ci cent groupement yoo xamante ne nii cent quatre groupement yoo xamante ne mu ngi ci fédération kon ñu xam ne ah loolu wëlbatiku wax dëgg yàlla loolu itam réussite la ah nga wëlbatiku ci surtout encore jigéen ñi volet allègement allègement des travaux nga xamante ne jigéen ñi dañ doon sonn suñu wal nga xamante ne nii wax dëgg yàlla ay machine wal wala tollooku vingt machine wal yoo xamante ne joxe nañ ko donc loolu itam wax dëgg yàlla nekk ay yëngu yoo xamante ne nii def nañ ko ci def nañ ko ci jigéen kon Euh, boo jëlee wàllum activité génératrice de revenu wala nga boole ko sax parce que mën naa ànd ak ndox mi nga xam ne tey mini forage yi paanoon yépp dañ leen defar ak pompage solaire nga xamante ne nii loolu lañ ci visé woon rek mooy ñaari objectif lañ ci amoon nit ñi mën a naan ndox bu neex parce que ku ne xam na ne ndox bi nga xamante ne moom la forage yi génne dafa weex xorom nit ñi mën a naan ndox mu neex waaye au delà de naan ndox mu neex moomu dañu amoon un projet euh, bi nga xamante ne dañu wax un périmètre maraîcher un mini forage te loolu def nañ ko suñu débat d'orientation budgétaire xam naa dañuy ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw aussi ñu mën a ñu mën continuer ñu mën continuer dans ce sens là kon ñu xam ne euh, góorgóorlu nañ suñ kemt lay kattan beneen bi ci des ci yombal dem bi ak dikk bi nga xamante ne moo jóge Kër Daam ñëw ba Caxar ak Fera nga xamante ne boobu waxtaan nañu ak ñoom ba actuellement ni travaux yi ñu ngi en cours te xam naa li ci des bareetul muy tali bi nga xamante ne mooy diggante Caxar ba Kër Daam ñu wëlbateku mu amaat ay convention yoo xamante ne nii dañ ko signé waat pour entretien yoon boobu ak bis yi nekk biir Caxar ba léegi ci fànn boobu nga xamante ne benn marché hebdomadaire lañ am muy njaañ bu ku ne xam na ne njaañ bu mi accessibilité ba surtout nawet dafay jafe ñu fexe grâce au programme PUDC ñu am piste boo xamante ne day jaar euh, foofu day jaar njabaay euh, jaar njaañ bu mi waaye wëlbatiku dem ba waxal jàpp nga xam ne ginnaaw loolu ñu ngi félicité ñi nga xamante ne ñoom la suñu borom jox ndam li en l'occurrence suñu frère Abdou Aziz Diom ñu koy félicité bu baax di ko ñaanal mission mu yomb waaye di ko ñaanal itam mission mu réussir ko ngir lépp rek nekk njariñu commune Jaxaar yépp ginnaaw loolu def nañ suñu jàngat évaluation ci élection yi incha allah jël naa note bu baax a baax ci li ñu wax tey it bu soobee yàlla danañu gën a weel ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp cant gi nag couche boo jël rek am nañ seen cant ak seen gërëm soo jëlee chef de village yi dinañ leen sant soo jëlee jigéen yi dinañ sant soo jëlee kilifa diine yi dinañ leen sant foo jëlee ndaw ñi dinañ leen sant kon ñu ngi sant mboolem population Caxar bi nga xamante ne nii mobilisé woon nañ ànd jàpp ci élection yi ba yàlla def ci mu nekk élection yu ñu dugg ci bisimilah rahmaan rahim waaye ñu génn ci ak alhamdulillah génn nañ ci ak alhamdulillah ndax am naa yaakaar ne commune Caxar xar kanam bi soppeeku commune Caxar tey am na foo xamante ne yegg na fa yegg fa woon ñu fi ñëwee en 2014 mu nekkoon lu metti loo xamante ne ni aussi li nga xamante ne moo ñu animé woon mooy commune Caxar ni mu mel ah ñun ndaw ñi ñëpp nañ leen takku ngir ñu indi coppite. loolu de moo ñu animé woon 2014 ba taxoon na it ñu àndoon nekk benn kenn ku ci ne boole li la neex ak li la naqari ne nañu ànd ngir rek ñu jaamu ci yàlla te am naa yaakaar ne loolu wax dëgg yàlla tey réussite la ci xar soo jëlee wàllu wér gu yaram jigéen ñi nga xamante ne nii góor moo leen daan gisee bokk na suñu njëkk suñu njëkk paa paa yoo xamante ne yu jëkk la ñuy teg ñu recruter benn salle femme ko defaral ko maternité bi defaral ko logement loolu nekkoon jafe-jafe boo xamante ne nii amutoon nattab na ci commune de Thiakhar ñu lu def loolu commune de Thiakhar ñu gis ne carte sanitaire bi ni mu bindoo dëgg dëgg dafa des ci carte sanitaire boobu wax dëgg yàlla ñu góorgóorlu suñu kéem lay kattan def nañ ci ñaari case de santé Njaañ Bugni Mboyeen Faxaan équipé case de santé bu Mbàcc waaye itam li nga xamante ne moom ba nekk jafe-jafe muy zone nord bi nga xamante ne Ila Touba bi daf ñoo séparé en deux parties ñu defar fa deuxième poste de santé poste de santé boobu wax dëgg yàlla mu ngi fonctionné. loolu ñu wëlbateku dellu siwaat fii nga xamante ne ni mooy jaxar ñu def fa benn bloc de surveillance boo xamante ne nii wax dëgg ak yàlla kon ñu xam ne rek ah yii ay yennat la yoo xamante ne nii jukki nañ ko ci li nga xamante ne ay liggéey la yoo xamante ne nii def nañ ko biir commune biir commune Thiakhar ci débat d'orientation budgétaire yi am nay perspectives yoo xamante ni dégagé nañ ko beneen bi nga xamante ne moo ci nekk mooy li nga xamante ne nii mooy le PTI muy plan d'investissement plan triennal d'investissement bi nga xamante ne mooy le PACASEN rural loolu def nañ micro projet yi ba finaliser nañ ko ba déposer nañ ko nga xam ne tout récemment rek lan ñu envoyé waat courrier nañu prioritiser waat leen génne waat leen ñu 10 projets yi nga xamante ne ni wax dëgg yàlla ñoo gën a nekk priorité ci projet yooyu nga xamante ne nii moom ngeen budgétisé yoon ci BTI yi xam ne loolu yëpp déposé nañ ko mu nekk ay micro projet yoo xamante ne dafay dem ci wàllu maraîchage activité génératrice de revenu yooyu nga xamante ne dafay demaat également ci wàllu poste de santé parce que case de santé ñu am diggante Mboyeen ak Njaañ amoon nañ véritablement donc ci biir BTI yi boobu nga xam ne dañuy defar euh, li nga xamante ne nii moo di Euh, troisième poste de santé ci ñaari cas yooyu ma cité en fonction tout simplement donc li statistiques yi yi wane par rapport ak cas yi li ñuy produire en terme de en terme de résultat bu dee muru clôture yi muru école yëpp lañ naroon clôturer parce que mu ngi ci programme boobu mu ngi ci programme ba léegi defar benn périmètre maraîcher boo xamante ne ni test lay doon pour caxar te périmètre maraîcher boobu yàlla dogal na maa ngi ciy defay gëstu parce que am na benn MBA boo xamante ne moom laa war a finaliser fan yi ci loolu laa ko def mu di une cité écologique intégré une cité écologique intégrée nga xamante ne ci biir cité bi dafay am partie boo xamante ne maraîchage ci biir partie boobu nga xamante ne nii maraîchage lay doon dafay am volet maraîchage dafay am volet aviculture dafay am volet embouche dafay am volet yooyu yëpp mais ci biir volet yooyu nga xamante ne ni daf cee am dafay am li ñuy wax reciclage nga xamante ne tey damay joxe juste exemple boo jëlee bout de vache yi mën nga ko transformer en biogaz ñu utiliser ko ci cité ba nga jël bout de yooyu boo defee biodigesteur bi loolu muy génnewaat mu nekkaat engrais nga mun ko utiliser waat ci li nga xamante ne mooy maraîchage bi pour na citer que pour na citer que ça pour wax ne rek. Euh, lii ay projet la yoo xamante ne ak ay micro projet yoo xamante ne ficelé nañ ko ba déposé nañu ko donc loolu itam ñu xam ne euh, mu ngi ci bu dee par rapport à l'électrification li may wax rek bareetul dëkk tey boo xamante ne mu ngi ci caxar te dugaluñ ko ci programme programme état nag am na yoo xamante ne dafay gaaw yii yeex waaye moom bu dee caxar pratiquement dëkk yëpp dugal nañ leen ci programme d'ailleurs booyeen faqaan mu ngi en cours xool xotoraan laa même chose ak domb te te am na yeneen yoo xamante ne nii bu soobee yàlla ci ay fan yu néew euh, programme yooyu danañu danañu tàmbali